day kura day tuuti day defante waaw defante na ba mu sax sax daa teel a ñëw nag taxul dëgg yàlla waroon naa ko moom mooy Issa Yoro Issa Yoro Diallo di Diallo la wala ba ah Issa la la Yero ah Yero lu Yoro lan mooy différence ah. waaw yërëb pël yi moom yërëb la ñu tudd yërëb. moom benn la. non propre amul ko. waaw loolu jàngal ma ko. jàngaloon. ah te te te قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني يا شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني آه، شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تيجان شيخ تيجان قطب رباني بعض الزمان شمس العيان شيخ تيجان قطب رباني غوث زماني آه، شيخ تيجاني شيخ تيجاني قطب رباني بحر البحور شمس العيان آه، شيخ تيجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تيجاني آه، نال المنى مجداني وكمالا عند المنان عاشق تجاري أجب رباني غوث زماني شيخ تجاري صحب رسولي صحب تجاني حب رسولي نور ضماني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شاف سعادة إلى الجنان باب الوصول على الم مكان أشيخ تجاني قطب رباني غرف زماني شيخ تجاني أمرني فؤادي في كل حين ورد تجاني فيه أماني كتب رباني غوث زماني شيخ تجاري طاب فؤادي ثم جناني قول رسولي فيك فاني شيخ تجاري زماني رباني غوث زماني شيخ تجاني نطق شفيعي عند الزمان منه قبولا عند الجنان آه، شيخ تجاني خطب رباني غوث زماني ابتلاء صل إلهي في كل حين على الحبيب هادي المبين آه شيخ تجاري نور رباني غرس زماني على حبيب هادي المبين مع صحابي على اليقين آه شيخ تداني حب رباني حوس زماني شيخ تداني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني شيخ تجاني قطب رباني غوث زماني شيخ تجاني J'ai routé d'aller, j'ai j'ai routé d'aller, j'ai j'ai routé d'aller, j'ai j'ai j'ai j'ai Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu Tijaan amani Sheikh Tijani Sheikh Tijani قطب رباني غوث زماني شيخ تجاري وحب رسولي حب تجاني حب رسولي نور زماني عاشق تجاني حب رباني حرص زماني شيخ تجاني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق خاتم الناس ناصر الحق بالعقيد والهادي إلى صراطك على وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم mbokk jullit yi mbokk

jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci wéttali bi macha allah euh, day mel ni rek amat gis mbégte lislaam amatina ndam ndax jotaay bi euh, ku ko gis rek xam ni ndaw ñi ñoo fi ëpp macha allah te li leen fi teg du dara rek jéem a baax baax lu euh, jéem a góorgóorlu ci lu baax jéem a def yitte ci lu baax jéem a roy ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ni ñoom la ñu muy sunu euh, mag mu baax bi macha allah loolu mooy sama bu jotaay bi nga xam ne nii ñett euh, ci membre Safina Touba ilallah yi ñooy fas yéene incha euh, bi mu leen ngir ñu mën a mu seen i mu seen xol doog nag mu li nga xam ne nii mooy seen i cër macha allah. donc nekkul jotaay boo xam ne jotaay bi ñu naan guddeel la ndax bu seen bi ñëwee ba tey mën na ni jotaay bi ñu fi am rek su nekkul jël yooyu jotaay yi mu wala ay ñu ñëw di jaayanteeg moom donc lépp di mbégte lépp di contentement tey nag euh, xam naa ni kàddu yi du mën a gudd lool dañuy bàyyi rek sëñ bi mu jublu ci euh, pas-pas bi ndax toogaay bi xaw na yàgg lool lool lool lool waaye nag lépp jiw la lépp lépp lépp lépp lépp la ndax boobu ba léegi jotaay yi fi am yëpp benn bu ci nekk rek euh, xam-xam feeñ na ci teraanga feeñ na ci defalante diggante feeñ na ci waaye recon euh, reconsidération am na fi donc di ndokkale bu baax xajmaa fi mu fi mu génn am na solo dëgg yàlla te lii mënu woon ñàkk jotaay bi mënu woon ndax mi lii ñuy def ah, dëgg yàlla yéene la rek yàlla nag mooy mottali te yaakaar naa bu ci bàkkee Cheikh Ahmed Tidiane ah, yaakaar mën naa ci li nga xam ne nii moo leen fi tax a toog yàlla na yàlla mottali lépp bi jaay si naw am sallallahu kon euh, noonu rek lañu yamale kàddu yi daal euh, bàyyi sëñ macha allah daal di mën a motu yéene mbokk taal yi nga xam ne nii ñoo dajalu fii ginnaaw bi nga ñëw sëy bi ziar la ndokkalaat bu baax ñu ngi lay euh, delloo kàddu bi jërëjëf alhamdulilah alhamdulilah alhamdulillah, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم alhamdulillah, ngi di dellu di ko santaat encore une fois te dañ koy sant ba faw ndax mbaaxam ak yërmandeem ak njëggalam ak yaatuwaayu ay xéewalam yi nga xamante ni amul limite bis bu nekk nag moom koy feeñal ci nu ko neexee yal nañu yàlla boole jublu su ko defee euh, du gudd leen li rek li ma leen di wax rek mooy yaakaar naa ni Euh, war ngeen a xam ne lu baax du yomb ndax sànq maa ngi doon bëgg a wax ne euh, jigéen ñi fi génnee depuis tàkkusaan ñoo ngi fi di ma xaar 17 heures ba tey ba 23 heures moom soxna si lay tuuti ne ma ñoom bi ñuy ñëw fii lañ ma fekk mm-hmm. kon xam naa ne bi dama génn dem ci ci bi moom mu ñëw tax mu ñëw taxaw. loolu am na lu muy signifié pour ma ne ma maa lu ñu lu ñu xaar ñun xaaram ñu ko waaye nag ah waaw ah, ah soxna si noo def lumière ya tax je vois ok euh, li am solo mooy xamal leen ne leen lu yomb lu baax du du yomb waaw euh, yitte bi ngeen di def tamit seeni tànta ak seeni bàjjen defoon nañ ko fii am na ku fi génne léegi ñëw indil may teraangaam bi mu koy def moo ngi def cinquième wala quatrième donc bàjjen la ci yéen wala mag ci yéen mooy soxna maam na fi njëgën tey jii moo ngi doom ju ju dugg école mu a doomam ju am 6 ans te bi ñu koy def dama leen élève secondaire la nekk am na ñeneen ñoo xamante ay ñetti doom ñi doom te fii la ñu woon fii ñu muur fi ñëw gi ñuy di muuru du muuru kum neex mën nga sa kër rek il commencé a waaye nag lañ ci wut ak ñaan ndax doone sëñ te dulay mur mbolo koy fekke so demone ba ay pression wala ay yu kenn xamul sax dugg la doo xalaatee sëñ moo takkaat sa muray so xalaté sa nawle yi ko fekke won na takkat sa muray te diine loolu la diine so déggee ñuy wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu la xam nga iyyaka na'budu ci ci français xam nga lu ñu signifie c'est toi seul que nous nous adorons yow soy julli lu tax ngay wax nous adorons te yow dong yaay julli loo waroon wax c'est toi seul que que j'adore loolu nga waroon wax mais même bu dee yow dong yaay julli sa biir nekk looy wax c'est toi seul que nous adorons loolu day wane ne l'islam diine la ñoo xamante ni sa diggante ak sa borom la dëgg la dëgg la waaye tamit da nga ko bokk ak communauté bi mooy li ñuy wax al umma kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna billaahi wa tadahawna anil munkar wa tu'minuuna billaahi gis nga ñett yàlloo digle lu baax tere lu bon sax ci ngëm yàlla mooy lii parce que nag c'est euh, ku def la gars yi daan def di nga dégg lan daan dégg seeni morom seeni tànk tey jii ñu jur ñu xaw a tolloog yéen ci ay at bañ ko defee fii de dégg na lu nekk dégg nañ lu nekk laa wax dañoo soof ak euh, dañuy ténj xanaa yëgoo tàngoor wi ci réew mi euh, déedéet moom dafa muuru parce que daa amul karaw yooyu yëpp dañ wax yow lu ci yoon ci karaw jàmbur ah bu dee même sax bu dee euh, amul karaw te du muuroo am karaw amul droit muur déew yaa ngi ni amoo karaw te dem xotti sa bopp wat ko ba mu set à la pour am karaw kii moom ne moom muuraay moo koy may keroog am na ci droit day day day ñaari yoon dina dina def ndigalu yàlla am karawam donc euh, yëpp di ngeen ko dégg day tey njëkk dinañ euh, la yooyu yëpp benn bu ci nekk nag am leen fulla am leen seen morom yi ñooy tëj dëkk di musiba yi di fekk seen i at di dem ci auberge yi di leen taxawaal kon nag yéen ñoom it fulla gu ñu am ci def lu bon yéen ngeen am fulla ci def lu baax kon loolu laa leen di su ne leen tàng na ngeen ne ngeen leen tàngooru safaraa bu gën a tàng tàngooru safara jahannama moo gën a tàng muuraayu bopp su ne leen da ngeen di tënj ngeen leen tënj du gàcce yonent yi tënj nañ leen walu yàlla yi tënj na leen lu leen di waxati do leen am jëkkër ngeen leen jëkkër yàllaa koy may tubaab bi dul julli sax ah di xaw ma lan ak lan di duñu xaraf duñu saw di taxaw ah ñoo ngi am jëkkër fas yi sax a ngi am jëkkër kon kañ mën nañu am jëkkër da nga naan duñu am jëkkër juy taxawaalu jëkkër juy lambar lambay jëkkër ju baax la ñu am ju yiw parce que kat xale yu góor yi mën nañoo lambar lambar di taxawaalu waaye duñu war a takk xam nañ kañuy takk donc daan wax gaay bu baax da ngay xam fa ngay tek sa tànk ak sa bët bi gaay yi dañuy ànd ak yow nii di la kii waaye du takk jotee parce que takk du du ku góor gee koy def takk da ngay dem wax ak papa wax ak sa wax ak say tante dëkk bi ñëpp ay mbokk lañu doone maa sekk moom mooy moom nga bëgg def dëkk ñaaka du lijjanti kuy maa sekk kuy yaayam kuy papa dañ koy lijjanti ba mu leer su ko defee am na maire yu nekk ci koñ yi war a jubóole nag ñëpp amul ñëpp jàmm foofu la ñuy ne ah waaw ndax xam nga diw wala ah, salaamaaleykum maire man euh, lan la fooy jëm kii dara moom mi diw kan <laughs> kooku mooy borom boutique bi borom boutique ñëpp ay faram lañu kooku ngay seet waaw ah yow kon day yow dese ay liggéeyul <laughs> ndax kooku dëkk bi mooy dàq taxawaat xaw ma loo fay wuti ji de waaye du yow moom ma dem tànk de ku dëng la xale bu jubali la yàqoo kooku du ñëwoon pour takk si la nu muy def day dem yoon moo tax am leen ne ñëpp jàmm bu leen bu leen wax ak benn maire gars yi ci ci mbedd bi ah nit réputation dafa am solo moo tax da ngay ngeen bàyyi xel seen bopp bu leen foog bu leen caaxaan am leen personnalité am leen fulla am leen fayda te bu leen xeeb seen bopp maa gis nga daaw ak ren ba ma ñëwee am na ci ñoom ci ay mbocc lañ woon léegi bi ma taxee ni ñoom di ma sànni màggu jigéen dafa gaaw bu leen xeeb seen bopp bu leen jàppee seen bopp comme ay xare yu ndaw ak yu demee noonu déedéet jigéen bokkut ak góor déedéet fi ne ni du déwénee ñii kenn dootul ñemee wax ak yéen rek laa wax ñii ñëpp kenn dootul osé wax ak parce que jigéen màggam dafa gaaw léegi nag ah. <laughs> non yow gentleman la. gentleman la tu

mooy koo xamante ni jàpp na ni ku mu gis daf laa war a teg diil ndax la dóor la jàdd la euh, euh, dribble la dem yoonam léegi nag loolu mën nga koy def muy dox waaye am na ñoo xamante ni kenn du leen dribble dem seen àq moo lay dal surtout ay maçon gii ak ñi ñi ñi kii ñi tàpp euh, tàpp xeer yi loolu nu mu tudd li ñi ñi ñi déedéet waxuma mën de sooy damee wallahi jigéen ju ci lekk xaalisu kuy dame wala maçon buy liggéey sérieux barki Cheikh Tidiane du ji da ngay am ngant de nga gis nga fi ne même bu amul ci yow dara doy génne golo bu xorom mo ngay dajel nokko ko mu sa aduna yow yow de ak xaalisu maçon ba nga lekk na loolu gis nga am na ño xamante bu len ba bu maçon ni damé jaay katou mbedd yi ni yaru di jaay mbedd ni do juume ba lekk sen diw wala nga lekk sen xaalis ta fekk yow bi ngui jël bëggoo leen man de ñiko def ñep gis na ni musiba daal na ak mo leen dal li ma leen wax japp leen ko bu baax ngeen téye ko gis nga goor doo ko bëggul bu lekk xaalisam xam nga loolu loolu sax c'est pas sérieux yow noboo ma ba nopp nopp sama xaalis ah <laughs> baax na toogal di lekk xaalisu gars yi rek bis dina la lekk yow di da lay lekk rek kuy lekkaate dan lay mujj lekk rek waaye vous set très jeune mais fi mu ne nii gars yi ngi commencé di xool di leen jokkaas ak yëpp di leen sànni ay affaire xam naa loolu bu baax da ngeen cee toll xam nga ni kii warul ma kii te moom ngi nii def yu baaxam toll ah di sànni ay loxo di màcc kii di def ay affaire yi di kii yooyu yëpp ay ay ay ay ay façon la. kii def ay lunette bu baax. ay correcteur la sax waaye nag xam nga dama leen bëgg a wax rek ne leen bu leen jàppee seen bopp comme ay xale ndaw déedéet vous êtes des grandes filles vous êtes appelées à gérer des familles donc bu leen caaxaan bu leen lekk alal ko leen bëggul bu leen di jéem dugg ci ay ay affaire ak yenn détails yi da leen di tardeel jàng leen. jàpp seen diine loolu laa leen di conseillé jàng leen jàpp seen diine jàng leen jàpp seen diine yéen a ngi ci des yëpp dana di tardeel day yàq sa xol gis nga affaire mbëggee lii billaahi doo ci duggee waxuma la ko ci burdu bi bu dee xol bu dëgër nga yor xolu xolu xolu xolu xeer nobal nobal nobal quarante cinq góor nobal quarante cinq jigéen mais su la wóoree ni yow sa xol dafa woyof dafa am ci nit ñi ñu mel noonu ñu gaaw a jooy sentimental gaaw a seen xarit du leen meree ñu dof bu dee genre boobu nga nga xam ko bul dugg ci affaire farantu ak nobante ak geral bu bu ci dugg parce que dañ lay dofloo man li may xam naa am na ci li may wax lu ma xam la am na ci benn xale fii billahi laala njàngam yàqu na moom du def lu bon de cuur déedéet waaye nee na ma man man su ma toogee Euh, di jàng yi sëriñ du mën a concentré wu. man ko loolu lan mu ne ma parce que damay xalaat waa ji. Euh, ku toll noonu di di def cinquième wala sixième mel noonu ci sentiment donc xam nga lu fit bi gën a dal tuuti mu gën a jekk gën a rafet mën a commencé diw kooku ku koy téye ci caat bi ñooñu xolu car rapide la xolu car rapide doo ko amee da xam sa bopp. <laughs> xam ngeen xolu car rapide mooy gaaw a bëgg gaaw a nopp dafa am ñu mel noonu soo ko amee da ngay dëgër dëgër dëgër lu ba dëgër ba génn ci dem sa yoon mucc sama yaay mii day wax ne jigéen day rëcc day day rëcc mooy da ngay jéem a yeewu yeewu li kii beneen moo tax xam leen l'intelligence et la ruse c'est pas la même mooy jéem nax yi am na ñoom ku leen jéem a nax doole seen àq moo leen dal nga am torox maa ko wax euh, kon jigéen la la dafa war a intelligente mooy lan xam li la war nekk ci lan moo la war correct yiw dal wax ndànk def ndànk di jàng liggéeyu kër mën a rafas mën a dresser mën a débarrasser mën a fóot mën a araw mën a lan mën a paase mën a lan mën a togg mën a lan mën a gome gone ak gome ak daakaande yooyu xam naa ne jant yi xamuñu ko sax mën a xontu xol bi ginaar loolu ci la. waaw waaw xam-xam la xam-xam la xamoo jëkkër bi ngay am dëgg la mën a mën a lan la kii a a xontu xar loolu tamit léeg-léeg sa jëkkër am ay xar yu bëri dem liggéey yi nga war a leen a jox nga naan da ragal xar waaw moom nga parce que yow gis nga kër këru këru machine la waaw moom nga gis nga yooyu yëpp xam-xam la ak la togg ci matt di xam kañ nga war a xindi kañ nga war dindi matt nii parce que soo ko bàyyi mu xam xam-xam la ak lan xam lu ñuy recevoir nit lu ñuy waxtaanee ak nit nan lañ ah mu ne di être accueillant être accueillante être éloquente mën a xam li ngay wax xam noo koy waxee foo koy waxee ak lan mën a joxe ñam mën koo toog ba mu doy di ko joxe ak yéene ak xol bu sell ak ak ak lan ah, ah Amadou Omar lu manqué ci jigéen. dégg ndigal dégg ndigal di bàyyi ay tere sooy génn di dem di. di tàggoo te soo ñëwee wax la nga doxi woon ak mën a ree mën a ree mooy lan ah waaw mais attention aussi du ñëpp de ki nga war a ree ngay ree ki nga war a am wan kanam bu ko leer moom nga koy waaye ki nga ko war a wan parce que jigéen tamit doo defee ku la nga siiñ ko loolu soo waree ree nga ree ki nga war a reeyal nga reeyal moom roxamaa soo waree soo waree am fulla fas sa kanam fasal sa kanam ban ne kii dafa dafa soo waree sourire nga sourire ak lan respecter respecter si jëkkër c'est très important lu am solo nga ak fonk sa jabar lu am solo nga waaw lu góor ñi rek lañu war a c'est important góor day tabe góor day limite da ngay mel limite limite jox la ok li nga joxe ba pare ne 3000 parce que jigéen ñi jigéen ñu baax ñi ko jigéen ñi doo leen joxee xaalis tamit yokkal leen ko wala nga may leen xaalis day dellu soir ci yow dañuy dem ko yére indil la ko jëndee ko lu neex indil la ko baa ñu dem jëndee ko parfum laal ko toog ak yow mu ne ah am na de am na de jamono bee jamono bee tëradi rek soxna si lool <coughs> c'est important waaw loolu si musiba xam nga loolu la sa jëkkër jox nga dem yóbbu ko ci ay natt ak di ko demee ci ay sëriñ ak di taxawaalu lool baaxul ah ay compte lii loolu kenn ko def jigéen yu baax du la sa jëkkër dimbalee da nga koy delloo si waat ci biir kër waaw dalay may xaalis nga denc ko ba mu am ñetti fan ba ba mel ni sa jëkkër la la mayoon lekk nga ko nga daan dem jëndee ko jën yu jën yu baax fii riir ko ba mu rafet kii teg bettee ko si dikkal wala boog nga tegal ko ñam woo xamante ni moom dina xam ne lii du dépense am xam nga lu bëgg a koo jox 3000 mu tegal la ñetti ginaar te ginaar di jar 3000 mu tegal la ñetti ginaar defal la jus tegal la defal la ay fruits tegal la di nga xam ne lii du sa dépense. kumba ceeb man kumba mii moom lay def. dégg nga li wax de. ah. waaw jar naa fi tasa de jërëjëf. yaa ngi yaa ngi fi tasa de. loo wax maman kii noo tudd loo kii Fatou Diop loo wax. lu kóoro loo wax ci li moom. ah. yaram ndaw na. foofu fu mu da bi mu dawee fan la jëm. ah comme jiw topp. sa bos dawul kon yaram moo gën a daw bi seen yaram ñoom ah mais c'est nga lii njàngale la te lii mooy affaire bi ah sa jabar luy def baax da nga jëkkër ju nekk duñ la tegalee xam nga xam nga ndax ndékki li yaa ko moom wala déet xam nga am na ndékki yoo xamante ni mburu rek la ak benn dogitu beurre ah ak benn kaasu café bu saful suukar moom nga lay jox nga door xam xam ñu bëri waaye duñ la tegee omelette tegal la saucisson tegal la tegal la croissant tegal la leneen ak leneen ak leneen di nga xam lii moomu ko xam nga ni am na ko fa jaar bu baax wala sa jabar teggi na nattam ñoo dimbali la defal lu baax yooyu nag moom mooy kii moo tax nag waaye nag ki jara defar mooy góor bu baax

jigéen ju am confiance soo koy gis di ko am maa la ko wax moom moo koy dégg lépp trop ba doo ko def de nag du bëgg kenn jàppale ko léegi nag gis nga doo koy jàppale nii da lay fee danga xam lu baax donc lii rafet na lool parce que sa jabar maa bur xaar ba mu dee comme comme dund bi dafa yàgg te seen ànd dafa yàgg su defee lu baax wax su defee safaan noo koy def da nga koy yedd no da koy wax ne ko li baaxul bu defee lu baax war ne ko kumba ne ko jërëjëf yëf jaar na yoon sa doxalin neex na ma noboon naa la un waaye fi nob naa la trois su su déconné nga ne ko wàññi naa un te nag yooyu soo koy wax tamit da nga ciy boole affaire may ko ñaari junni wala nga nga doxantoog moom dem dem yóbbu ko xaw ma fan. maam fan fan fan yooyu barab yooyu fanati la ah maa. kañoon glace. glace. <laughs> donc yoo loolu dafa am solo àdduna àdduna bi léegi dafa doy waar léegi daa gaaw moo tax duñ leen jàmm kuy indi ay coow ay problème bàyyi da ngay dee dund leen jàmm wut leen jàmm wax leen jàmm def leen jàmm su dee yaa sa jabar nga nekk def leen jàmm dund leen lu leen di indi ay ay bu leen ci dugg mu bu la sax lii doo ko waxee ngeen waxante dara guddi gi yàqu ngeen fanaanook mer bu ko wax bàyyil ba suba

dootu la neex du demee ba ci yàgg da nga koy jéppi léegi nag su ko defee loolu fu du ko jëkkër ak jabar àggee si fini parce que dara dootu la sax. dara dootu la sax lu mu def du la neex ngay dégg ñu koy wax man daal mënumaa def dara lu ko neex la ak ngeen ba musiba parce que da ngaa dajale ay musiba dajale ay jëf yu sew ak ay seen jërëjëf loolu baaxul musiba la yàlla ñu yàlla dimbali donc euh, yéen da ngeen di mu wut waaye nag jotaay bi seen morom ak seen nawle fi nekk dañ ci profité waxtaan ak yéen soññaale leen pour ñu gën a taxaw sàmm seen bopp sàmm seen góor sàmm seen biir yàlla yàlla jàppale ñu euh, muuraay nag li ma koy li ma leen di wax toujours mooy nit ki day muur boppam bala ñu ko bala ñu ko muur sàng boppam bala ñu ko julli bala ñu ko jullee jox yàlla boppam bala ñu ko jébbal sangu balan sang muuraay nag ci xol la beneen bi ci des tamit bu leen muuru muuru muuraay yi bees yi ci réew mi kooku musiba la xam nga muuru dangal ba mu saf muuru sol sa boli muuru euh, yiwadi muuru di dem ay auberge ak ay soirée ak ay jotaay yu nga xamante ni ab jullit sax waru faa dem waxuma la nag kuy takk boppam di muuru ay ak déglu saawam te xam nga saawam ah déglu saawam xam nga musique saabu mooy musique déglu musique de musique day fattu xol musique day fattu xol ku la dàq déglu musique moo la gën a bon xol xolam day mujj yàqu leeru yàlla bi dugg ci xol buy déglu musique soo leen di déglu loo war a déglu alxuraan wala dikkat wala waxtaanu diini musique baaxul musique baaxul musique baaxul day yàq xol day yàq xel day alak doomu aadama parce que lañ cay wax day am ay jeexital su ne nii wax yi may wax nii wax yi may wax nii du ay kàddu kase de am na leer buy jóge ci sama sama sama dënn di jur di jaar ci kàddu yi di dugg ci seen biir xol bi sooy déglu musique tamit am na ay musiba yu jóge ci iblis di jaar ci gémmiñu waykat bi ak son yi ak tëgg bi di dugg ci sa biir xol su yàggee day mujj dindi iman bi nekk sa biir xol ak leeru yàlla gi nekk sa biir xol yëpp da koy dindi ba mu set ngay mujj rek xëy rek weddi yàlla doo xam foo jaar leen musique euh, beneen bi leen tiktok tiktok wóorul de wattu leen snapchat snapchat wattu leen statut wattu leen ko sooy statut da ngay statut luy am jariñ mais def ay statut ay façon yoo xamante ni soo paree keneen partagé ko keneen partagé ko mu dal ci loxoom ab saay-saay am na ñoo xamante ni seen statut lañ def gars il ñoo ngi def ay clip ko ci ay vidéo te ko xamoo say cër nekk ci biti wala ngay fecc yenn fecc yi y léegi loolu dañ koy jël denc bu subaa doo fi amee njaboot wala nga nekk ministre ñu jël ko teg ngi ko la ku ci loolu looy def nit mën nga amuser wu mën nga foog waaye xamal sa bopp bul bul àgg bul àgg fenn fii bul àgg fenn fii bu leen topp parce que nit ñi dañuy def loolu rek ngeen koy def parce que dañ koy kii rek ngeen koy def dégg ngeen yooyu bàyyi leen ko xel kon euh, correct leen loo leen di sol ah, ab jullit lu ma leen daan wax su waree sol yére lan la war a wax yére bi lan la ci war a wax ñetti ñu warul warul gàtt warul yaraax warul seere ko ñett yi bu ci am rek yëre boobu waroo ko sol waxaat leen ko warul warul warul Fatou Diop wax ko ñett warul gàtt warul yaraax warul seere nday day tuuti wax warul gàtt warul yaraax warul seere caaro wax ko warul gàtt warul yaraax warul seere cheikh juruq bi waxal warul gàtt warul yaraax warul seere doxee waxul gàtt waxul yaraax waxul seere moom ne da koy araamal isaa yor a waxal waxul gàtt warul yara waxul seere ñu wax warul seere Omar Ndiol wax ko. warul gàtt. warul sa yara. warul seere yërëb jullit warul gàtt wax leen. warul yara warul seere yërëb jullit bu jigéen warul gàtt. warul gàtt. warul yara. waa sol lu jëp ba si fii. waaw kay ba mu agsi fii bañ a def fii takk dënn bi ba mu leer xool ba mu rafet c'est très noonu rek li ci des yëpp amul solo ngeen jàpp jàpp seen diine bu baax bu julli jotee bu leen kenn wax dinañ julli ah Issa Yoro Diallo ak soxna Rokhaya maam na ngay seet la sama na la tuddee nag kan la kuy sa turandoo doomu maam awkaat yi mais xam nga maam nogay xamul maam nogay photo ndeysaan waaye jigéen bu baax noonu daana ma wala ji fonde xamoo leen woon jaay fonde xamoo leen loolu xam xam caara xamoo leen woon mais loolu loolu yàggul yow yaa ngi fàttaliku quand même waaw man ma ngi daan jaay fonde fonde fonde yi ñu daan ndékkee fii suba teel dafa daan jaay dafa daan defar di ko jaay par siwo di ko jaay maama laaj daan nañ ko jëndee tamit fi ñuy wax mère Ndiaye fii ci ci kër Cheikh fii waaye sama am daan na ko defar daan na ko defar macha allah seen maam bu góor rakku maam la xam ngeen loolu ah. seen maam bu góor maam Maguette Seck doomu ndeyu maam alaaji moo tax suñu papa rakk lañ ci papa Mouride xam nga loolu rakk lañ de kilifa ngeen si kër gi kilifa ngeen de ay tànta ngeen fi rek ak bàjjen bàjjen ñëpp ñoom vieux fay ñi seen bàjjen ngeen xam nga loolu waaw ngeen euh, seen bàjjen ngeen bàjjen yéen doo leen fi nekk ci kii ci kër gi mama Maguette sek sen mam rak ko mam alaji la sen Demba sek ak eh, nu mu mam bay sek abdou sek ñoñu rak rakku Serigne Mouniru lañu du ndom de rak lañu papa lañu ci ñu yeen bàjjenu ñu ngeen sen bàjjen ngeen ki ba seen bàjjen bàjjenam ngeen pi ba xamna lolu ba mo ngi doxal ah gën de waaw yéen yéen a koy yóbbu moom aussi musée yi yéen a koy muur yi waaw seen bàjjen ngeen waaw di doosi loolu nekk na waaye seen bisimilah comme ñu ñaanal leen yàlla moom boog ngeen comme ni ma ko daan waxee rek muuraay gi ñoo ngi ñaan yàlla mu yëkkati ko ci muuraay bi maam Aminta Faye waaw loolu loolu mooy lan loo pas-pas boobu lañ ciy am yàlla na ko yàlla yëkkati ca muuraay maam jafe yi. amiin yaa rabbi ah ak yaayu Alaaji Ahmad Baro mooy maam Fatimata Ndaw ak yaayu maam Cheikh Alxaaji Omar al Fuuti yi mu tudd Adama Aysi ak yaayu Cheikh na Ahmad al Tijaani yi mu tudd lan la Aïcha ak yaayu Seydina Aliyu mu tudd Fatimatu bintu Asadin ak yaayu kan Seydina Muhammad nu mu tudd Seydatuna Amina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 Amin ya Rabbi Amin Amin ya Rabbi Amin Amin Amin ya Rabbi. Amin. yéene waale ci soxla yëpp yéene waale ci tamit sëriñ bi yàlla guddal fanam bu baax a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 كامل بسم الله بسم الله باحنا أكل الحمد لله الحمد لله يكتب الكابل لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله jégalu si kàddu bu baax lu baax la parce que ñun xam naa leen bu baax ñun ñun jigéen ñi baax nañ si tamit ñun kaf dañu boole ñu dugg si dugg ñu suñu ay abasinga sobola emiti minyo apara esinga hati omumara esinga minyo Ahmed, kaysani ci kaddu Ahmed xam nga li xew de. waaw ci lan moo xew Ahmed. dañuy muur waaw bisimilah. dugal dugal ba ci biir ndax nga mën a wax ci kaw. salaamaaleykum waaleykum salaam. xam leen ne ku nekk tur ak bu baax baax ndax lu mel ji kon ko yàlla def na yéen tey ji da ngeen ñëw pour muur seen nguur bi ngeen nguuraa bi yàlla sax. amiin soxna na amiin waay. ba des pour ñëpp si mën a roy si yéen. kon nag. fonk sen seen ñaari waajur fonk seen juraay baax baax sol yiw ba ku leen gis ñeene kon daal ñu ngi leen dénk suñu sëriñ suñu ñoo jege kon ko moom yàlla def na ne moom moo ñëw yéen a yéen bëgg buur yi ta ta da ngeen tàggu seen waajur ñu bàyyi ñu bàyyi leen tey jii nii seen si d'accord yow loolu néew ñu julli waaye yàlla def ne seen waajur ànd nañ si kon nañu sant nañu sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah d'accord jërëjëf Seydi Ahmed Abdoul Aziz bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatu ñëpp ñu fi teew di leen baalu àq ñëpp tamit maa leen ñaan leen jéggal xëy dañ fi wax loo xamante ne waruñ ko woon wax tamit mais ñun ñaan nañ jégal ñu ko ah lii de comme ni ko sëñ waxee rek lu yomb actuellement si société bi léegi ñu naan léegi dëkk bi daa xaw doy waar te ñu naan waliw yu baax yëpp ngeen gis ñuy tudd seen tur ay jigéen yu baax ñoo leen jur jigéen ñoo xamante amaana sa pour nga dox ba gis seeni loxo sax problème ndax sol lu yiw def lu yiw ba ñëpp ràññee leen ah kon nag muuraay bi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral si yéen ba seen xol yi bu ko bu ko yàlla tegee si yoon yàlla tamit bu ko seytaane mën a dëddal waa leen ñaan nag ñaan yàlla sax lay wax mu mu gën leen si saxaar ndaxte muuraay ni ngeen ñu ko sëñ bi waxee muuraay day freinu góor loolu secret maa leen ko jox muuraay day freinu góor yowoo ngeen dëggal ko incha allah kenn du leen ñeme waaw kon nag alhamdulilah alhamdulilah incha allah soxna Koumba mu ngi ci say presque ci njaboot gi leen wax waaw ñu dëkku ñëw julleekaay waaye tamit ci même génération ko waa kër ay maire

Gracias. boobu tey aw si tey li may def mooy li ma ko yéex a def li ma ko yéex a def mooy yàlla na si yàlla sax te mu nekk lu dëgg muuru yomb na yomb da ngeen jël bu baax yéen mais ànd na seen góorgóorlu yàlla jàpp Mm-hmm. Amadou ah, bisimilah. alhamdulilah alhamdulilah. lu baax la ndax jigéen am hmm. na mu toll moo wax na mën naa ne lii rek moo ma am moo moo moo dimbali ndax Sénégal bi dafa dafa ba nekk Sénégal boo xam ne dafa bëri caaxaan ñu bëri jigéen ñi jaaxal waaye nag ñu sant yàlla ba yàlla ñu leen di wax nag yàlla na yàlla jàppale ba ñu bëri seen yoon bi su ne man gis si Sénégal gii nii day ñoo xam ñu jógee sànq duñ ko def duñ toog ay at yu sax léegi wéru sànq duñ sax dañuy nekk sën bu kafin fee ma nekkoon ma ko ma ay baay baay ma ko ma ay dara je ne sais pas moo tax suñu tiyaan bi dafa neex donc seen Moustapha moom Baye Fall te ni ma ko gisee noonu dafa laa gisee ñeneen ñoo xam ne dana am alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah parce que cérémonie yi daanaka bareetul léegi cérémonie boo gis ay xale yu jigéen ñu ndaw bi benn âge bi dajaloo pour lan la ñu toog di waxtaanee ci xale yu góor di waxtaan ci lu bees lu xew loo xam ne daanaka mbiru àdduna rek di di wax di di di jaayante yenn yoo xam ne daanaka yoolu góobu la leen ci yàlla waaw parce que c'est pas évident ay ay ndaw yu yu toll nii yéen daanaka ak ak bi xew tendance bi léegi ju waxuma waxuma sax muuru dematuñ pour muuru maanaam léegi sol sol lu leen gën a lu mu gën a jot rek daanaka da leen a gën a soof waaw daanaka fi jóor ci tendance bi loolu boo seetloo tendance bi loolu lay wone bu demee nag ay xale yu ndaw a ndaw âge bii ngeen toll nga xam ne daanaka àdduna ci bari lu baree bari ci lay ci lay ci yow mais tamit dañ ne euh, jeunesse mooy passage seen seen seen bi da koy wax mu ne jeunesse mooy passage bi nga xam ni ci la ci la boo ci ci ci ci ci ci gestion ci la sa defaru àdduna ak sa yàqu àdduna ci lay ci lay nekk ci passage muy âge bi nga xam ne ci lañ naan âge de la parce que ci ngay tàmbali di gis yoo xam ne daanaka musoo koo gis di yëg yoo xam ne musoo koo yëg léegi nag foofu ci la bu la yàlla dimbalee nga am ci bu baax bañ mën laa bañ mën laa gindi ba nga jël sa daan ne fi mu toll ak li fi mën a xew yëpp fi mu toll dama ko je vais tourner le doigt pour mën a jël sama xol daal di comme na yàlla waxee woon li mu ko ordonné woon. yaa ayyuhan nabiyyu qul xulli azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna nga ne fi mu toll damay jaayanteeg yàlla parce que jaayante bi ba fa dëgg ñëw bi pour mu pour mu muur leen waaw mais jaayante bi yéen yàlla waaw parce que da nga ne ko yàlla joxe nga ndigal na ñun suñu ñu ñu wër ñu baree baree bare suñuy yaay suñuy tànta suñuy mag ñoom jëfewuñ ndigal bi waaye ñun ñii doon ay xale yu ndaw pare nañ pour jaayanteeg yow pare nañ pour jël kool teg ko suñu bopp pare nañ pour dummóoyu lépp loo xam ne dañ koo tere pare nañ pour jaayanteeg yow ci lépp loo xam ne dañ koo lépp loo xam ne jullit jigéenu jullit moom la war a comporté woo pare nañ pour def ko daanaka bi cérémonie bi loolu mu doon nag loo xam ni mën na ordinaire ci ñenn ñi waaye lu rëy rëy rëy rëy daanaka cérémonie yi dañ ko waroon def télé yi gën a am doole ci àdduna bi dañoo waroon ñëw di ko def en direct ñu def ko ay archives di ko partager un peu partout dans le monde parce que yii mooy mooy yi nga xam ne moom la ndaw yi war a jël comme comme référence waaw yii la ndaw yi war a jël comme comme référence mais au lieu de ça boo seetloo dañuy. salaamaaleykum waaleykum salaam ja ja ja ja na ngeen def au lieu de ça boo seetloo tendance bi lan la mooy. ci émission télé yee ci lépp lu ñuy def dañuy jéem a xool jigéenu jullit yi ñu yóbbu leen ci ci benn benn monde boo xam ne monde inconnu la par exemple émission yu bëree bëri am na fi seen seen objectif loolu la moo tax yii nii du bëri luñ koy feeñal du bëri luñ koy feeñal parce que daanaka sax amatul wallahi ngeen ngeen sant yàlla bu baax xam ni yàlla moo leen moo leen gindi yàlla moo leen bëgg a yàlla moo leen bëgg a parce que sëñ bi day wax yàlla lépp lu mu bëgg lu mu bëgg a euh, lu mu bëgg a aar da koy muur da koy nëbb waaw te te fi mu bii nii phase bii nii loolu la di leen ñaan yàlla na leen yàlla jàppale sàmm leen aar leen ir leen làq leen ci yàq àggul daal gën a kàttanal gën leen a may doole ba ngeen mën a dékku parce que di ngeen parce que yoon bu baax moom ku fa nekk par la force y aura des dina am ñoo xam ne toog naan la comme ni ko sunu ma waxee sànq waaye ay xale yu ndaw bëgg ñoo indi problème mel ni ñuy téeñ di ngeen um seen bopp di ngeen teel màgget ak yooyu yëpp di ngeen ko dégg waaye yéen xam leen rek ci woote bi yàlla ngeen wuyu ci ndigal ngeen di dox daanaka fexe leen le tout dana bu mu bañ a bu mu bañ nekk tamit benn muuraay boo xam ne ci bopp lay doon na na na doon muuraay boo xam ne da ngay muur sa xol mu doon ci ci ci lu yëpp nga nga nga fas yéene koo bàyyi yëpp yoo xam ne seen morom bi ñu ngi ci daanaka jëmee wu ngeen fexe koo dindi ba ku leen gis bu doon référence ci yéen ku leen gis ngeen jàppale ko référence ba yàlla ñoom mën leen a xett li dimbali leen bañ mën a ñëw fii toog ngeen toog ba am chance bi ngeen am mën a muur wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Idrissa ñu tëjee foofu ma jóg gis nga sa sa sa bàjjan bi ak sa mbokk yi doom kii doomu oustaz Diawara la kii tamit waa cité ouvrière la. ah léegi ñi kaay xewlu. ah, ah. ah. bismillah waaw. Ah, mënul ñàkk jamono bi suñu toll nañ ne bii moo fi des ñu mel ni seen moom bi ñu raar lañ ay perle yu raar lañ kon man koy wax démb rek daan ne suñu moom nag jot na fi ne mu temps bi muy def Europe dafa yàgg trop mu def ko fii ndax bu ko fi defee yokkute la ci xale ci ci jeunesse na comme record bi footballeur bu mag bi di def ci yeneen liggéey bi mais moom ci diine mu ngi def retour am solo dëgg yàlla ku xool diggante gàmmu ga ak déegi li fi xew ci ay jotaay jotaay yoo xamante ni waxuma sax waaye xale yi ci gindeeku xale yi ci seen xel ubbeeku bu kenn xamul boo tàbbee ci ay loxo nga yàlla defal la sutura buy wax ak nga xam ni lii mu lay wax dëgg kese la nga xam ne ndimbalu suñu borom mu ngi ci donc ñun dañ leen encouragé bu baax a baax baax baax di terminer fi KMB euh, Mouhamed euh, euh, di tàmbalee fi nga xam ne terminé mooy muuri bu baax na lool wax dëgg yàlla rafet na léegi sax tendance na vraiment léegi jigéen ñi xam nga bu njëkk da nga daan yi sax pour rafet mais léegi boo soloo ba rafet faaw nga muuru ba ko rek takk say lunettes yu rafet yor sa tuus bu baax ci la ñun ñii de loolu lañ ñun xalaatuñu dem takk bu yiiwal xalaatuñ ko ci kaw suuf waaye nag ñu gisee ko yiw solu bokk rek mel na mu war a mel boole ji di si ka toog fi mu war a toog góor ñëpp daw ñëw ci yow boo yiwee nag ñu bala fi te yéen ñëpp âge boobu ngeen toll âge yu jàng góorgóorlu sàmm seen bopp respecté seen waajur yi fonk seen papa yi fonk seen mag ñi ndax respect bi du ci papa yi ak yaay rek am na ci ñoo xamante ni dañoo fonk seen mag yi ci dëkk bi Ninguém foi ocupado. Gis Kita sa papa sa yaay du la waxal bu lu bon du la xamal lu bon bu nit ñi ñëwee toog dañuy seede lu baax rafetal la nga def waaw lu grave laa leen wax respecté papa yi rek baax na waaye boole leen ci seen mag yu jigéen yi ak seen mag yu góor yi ak seen nijaay jiwul lu lu buñ la yónnee nga bañ bu ñu waxee nga tontu leen di leen dëj ci seen am bu jëkkër ñëwee ñu woo ci suuf nga xanaa nga ngaa dof kii diw de nii la mel diw de nii la mel day tontu day def nangam day def nangam man mii de barki démb xaw na maa rey ba max na ma sax su ko defee ku mel ni man nga xamante ni sama yaay dafa wëri du ma ko takk di ko yóbbu muy ba max sama yaay du ma ko nangu donc na ngeen gën a correct na ngeen gën a correct ni ngeen muuroo nii mu rafet mi ngi noonu seen gàtt-gàtt yëpp ndax nit matul waaye nag boo leen defee di toog ci kanamu sëriñ bi mu rafet lool ñëpp kontaan ci nga xamante ni ñu ah, ah, la waaye bu demee nag lañ koy gën a dëggal lañ ko lañ koy gën a dëggal ndax am na ñu naan da ngeen ñëw nii rek événement la sëriñ bi ñëw na ngeen ñëw ñooñu nag fexe leen la bu ñu am dëgg ci seen kaw mooy muuraay nañ koy gis tout le temps ci yéen muuraay yi nay répercuté wu ci seen i ci seen soxna see doomu ndey jub na xam naa ko bu baax kële maa ngi moom ci sama commission la nekk xam naa waaye wax dëgg yàlla yàlla moomu ti ñii de xamal ma leen dara te man ci koñ man daanaka maa chef de quartier waaw vraiment ñoom ñii ñëpp xam naa leen dama leen man yàlla moom nattoo noonu sax presque ñëpp samay xarit la ñenn rek laa amul wax yu sori ndax xëy na miinante wu ñu ba waaye doomu Saal moom macha allah borom alkool. ah. waaw. ah moom la de wala tuuti ah. tuuti wàcc nga. fan. donc. aywa ah ndey tuuti nag tàccu leen li waay macha allah ah ah ah quand même macha allah macha allah. kii la waaw ñoom it ndeysaan waa ko dem dikk def li ñuy def dem toogaan bëriwuñu sax ay xam nga waaw ñoom noonu lañ mel ñoom xale yi. yëpp wax sama bàjjen yi. bàjjëli dañoo tuuti. waaw cër du tuuti day biir. waaw waxal loolu. waaye nag bàjjëli baax la jox leen seen cër biir. waaw bàjjëli moom wax dëgg yàlla. jox leen seen cër man bëgg naa leen a bàjjëli moom. ndax bu ma xamoon benn détail wala nangam damay bañ loolu ba dëgg ci suuf mais macha allah te yàlla dimbali leen kee tamit jàmbaar la. na sële. Issa jàmbaar la waaw jàmbaar la moom. naan loo ko doxaloo de yow teg na mooy pression yu métti ci gàllankoor. waaw waaw sëñ bi. boo ay idée la nag. moom yooyu moo koy xalaat rek ñëw song la man bu ñëwee ba ah yow nii ma wala dama ci sëñ bi mu ñëw. te day wax ak man ma génn mu karaat ma ma génnaat di wàññi dem mu karaat ma ma ni ah. di liggéey donc moom ci jàmbaar la ànd ak ñoom Fatou Diop ñi nekk ci liggéey bi nekk xale waaye bu ñëwee rek dafay tënku ci principe yeeg yëpp yi ñuy doxal. donc mu nekk loo xamante ni ñun du ñu kontaan man bi ma ko waxee rek damaa génn jox. seeti woon sama mais damaa profité woon dara donc di ci kontaan bi baax a baax a baax di leen encouragé moom dinaa ko suivre moom ñeneen ñi tamit dinaa leen suivre bu baax ku ci rek dinaa woo bi man direct bu ma dama lay photo man noonu lay def dama lay photo tey envoyé ko donc di leen di leen seet ay boori tisbaar yooyu waxtu yooyu am naa heure yii donc mu ngi noonu daal tuuri ndox rek baax sax donc pour bañ a guddal sëriñ moo ngi noonu kontaan nañ bu baax yow ñu ngi sant bu la gërëm ci taayee di ko ndax xam nañ ñun ñu ne yow ñoo ngi fi ñoo ngi ànd ñoo ngi gis ñoo ngi fekke lépp te lépp di njëriñ ñun dañoo kontaan daal wax dëgg yàlla kontaan nañ jamono ji da ngay tiit sax fii réew mi toll doy na waar doy na waar doy na waar rek man kàmm sa ñu ngi doxoon ba auto police arrêté par yàlla ñu waxtaan ak mais ñi ñu xam nañ ni bu police dabee dañuy même bu ñu yoree sams mais da ngay tiit da ngay tiit moo tax ku ci am ñu mel nii bu yeboo nga béy ci ku ci am ñu mel nii sa genre bi rek ci mën daal ndax xale yi buñ la bëggee loolu leen wax dinañ guddi loolu moo am solo buñ la bëggul rek waxal fii ba te yàlla def na ñoom dañ laa bëgg te loolu chance la xam naa ne ñun wax sax ñu mais yow wax dinañ ko moo am solo ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax baax fonk seen bàjjeni fonk seen mag yi fonk seen mbokk yi te seen bopp góorgóorlu bu baax a baax a bala ñoo nuyu suñu mbokk yi rek suñu maxtaar dafa mel ni internet yi aussi kontaan nañu ci jotaay bu rafet bi nga wax ñi fi nekk ci ligne bi ak nga jotali seen i ci jiitu rek dañuy ndokkale bu baax Omar Kane ndax bi tamit su ci yàlla dafay tawfeex bi am na ci jàppale bu bëri ci taxawaayam ci orientation ci wér ci lépp loo xam ni daal war naa mën a jàppale suñu waxtu yi ci seen yoon yi nga xam ne moom lañ jël tamit Omar ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax ci surtout di koy ñaanal tamit yàlla yàlla dafa ko ci li xam ne ni koy sàkk donc di jaajëfal tamit mook Mouhamed Niang bokk ci membre yi nga xam ni nii euh, ci période gàmmu gi la ñu intégré mbooloo nañ Mouhamed bu taax ah, kaw waaw këri kaw waaw ñooñu a baax a baax xaaj Ndiob moom it mu ngi leen di euh, jox tamit ay conseils ci ci Coran parce que des fois habillement yi c' est pas évident pour respecter li nga xam ne sëñ moom la doon ci mutuelle yi mu ngi leen di orienté ci ngeen bàyyi xel Coran yi loolu tamit day faciliter seen solo Coran. te xam ngeen li am na ñu jiital nii.

nee na maman dina leen jox ay col yéen ñett ñi nga xam ne yéen a muwu tey de même que Fatou Diop mi nga xam ne nii récemment moom it muwu woon na. donc dégg loolu nouvelle bu neex boobu dégg ngeen ko ni njóogu la. njóogu la waaw. Ah. donc maman mooy dina leen jox douzaine col yéen ak Fatou Diop. incha allah col yu nice. donc am na ku ñuy wax Pape Ndiaye su ma jumul Pape Ndiaye bu bu bu mbuu la wala Lagos rek. waaw donc Serigne moo référence la pour la jeunesse Pape Ndiaye Lagos exactement. Pape Ndiaye Lagos waaw. ñu leen di jaajëfal daal ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne jot ñu commentaire Cheikh Racine bi ak yeneen mbokk yi nga xam ne tamit après la ñuy euh, mën a suivre yooyu ñoom ñëpp daal comme ni ko ubbee ñu leen di jaajëfal bu baax a baax baax ndax am na ci euh, lu bëri daal fan yi ñu ngi euh, message di nga xam ne liggéey waaye tamit en même temps di joxe seen xalaat ci lu ñuy def bu yëf yi gën a jàppandi parce que daal gis nañ ni wax dëgg yàlla yi fi njariñ la donc ñoom it ci ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal bu baax a baax loolu daal moo nekkoon réaction bi nga xam ne nii mbokki internet bi def nañ ko pour l'instant. loolu baax na parce que man na doon xalaat ni daan def sax laa maam na fi njigéen mii fi jóge sànq xam maam na fi gis ngeen moom moo daan def heure bu jigéen muur waan day wër fii yëpp woo Aminta Seck woo ñëpp ñu dajale. nga xamante ni da am ci na dina leen yu doy incha allah di am ngeen am ngeen col yu kii waaw su leen dolliwaatee ngeen am couleur yu bëri mu gën a baax col yu rafet incha allah. yow doomu Oustaz Gaye noo tudd Anta Anta kañ ngeen muur yow après waaw waaw waaw d'accord léegi waxtaan ak waxtaan ngeen jàpp bés ah ak Pape Moussa waaw non waxtaan pour bés bi la quoi pour programme bi xam nga moom xam nga waaw waaw programme bi ñu ñëw rek ma leen bis disponible rek ngeen ñëw moo gën incha allah moo gën dëgg parce que déplacement yi du commencé am rek jeex wala am na li may xoolee wala waxuma waxi ñibbi déplacement laa wax wala ma nar a nar a neral waaw su ko defee kon euh, alhamdulilah lépp tàmbali ci bismillah yal na yàlla barkeelal yu baax yi fi ñëw sëñ Ablaye Ablaye waaw sëñ Ablaye Dia waaw dalaaw di suñu goro di euh, borom kër ci soxna Ndiémi Ndiéguène sëñ Daam sëñ Abdou Salam Ndiéguène wala Mouhamed Ndiéguène macha allah Ndiémi nag dëgg yàlla ana ma jóg dafa dem ana fi yëpp bien Ndiémi nag waaw problème ci yow Ndiémi nag wax dëgg yàlla. ñëpp xam nañ waaw waaw waaw kon amoo loo ma wax danga may sonal rek euh, ma sa sa sa sa bàjjen moo fi ñëw ànd ak sëriñ donc euh, ma ne moom njéeme moom ku ko xam-xam na kook man nag sama njéeme la li may may may ko kenn ci àdduna waaw wax dëgg yàlla nday ami nday ami sëñ abibu la waaye njéeréer moom ñëpp xam nañu. ñu ne ko de wax dëgg dem ba léegi. waaw moom mooy sëriñam mooy jëkkëram macha allah euh, waaye moom li ko jàppee rek mooy ba mu fi ñëwee fajar bu jot heure bu fi nekkee fajar bu jot ñu yëkk jàkk ci la woo te la waaw man man it dama ci ndax ki ko indi fii ba mu jël njéeme moo ma jàngal alxuraan mooy sëñ Moustapha mooy njaati jé moom waa Gosaas yi donc nag alhamdulilah euh, ñëwee fan yëpp moom mooy wax ne ma su Ablaye ñëwee dinaa ko indi mu ñëw ziar si fan yëpp wax na ma ko donc nag moom it su ñëwee fekk seen jotaay bi comme jotaay bi rafet na bu hmm. ndax suñu sœur la waaye ñun suñu xarit la hmm. ah hmm. man moom waayam la lu mënti xew ci moom doon ne ko sëñ Mor ñëw na rek jeex na waaw lu lu mu bëgg da def sax dina ko def waaw. waaw hmm. ah, man bu dëgg yàlla suñu tawaare li may li may wax yow. macha allah tawaare bi ma gën a mën a baax na si moom. waaw maa ko gisee comportement bizarre bi ak par ak problème bi ñuy wax nga xam ne kii ñu ko avenir la sax seen bi ci avenir la laa ko wax nga xam ne xam naa si suñu ministre avenir ko defal incha allah rek ba yàlla jàppale incha allah rek mun naa ni li islam bëgg daal mbaa maam bëggoon xam naa ma danaa wax ci waa mbaa la yàlla dimbali la aussi sa maam moom moom wax dëgg yàlla keroog bi Thiès diine amee Thiès bi nga xam ne maa ay ay ay tuubeen la ñu mais mais sa maam am na bëri ñëw di xeex di xam ne macha allah islam yi taxaw Thiès taxaw mais man man maa ngi dellu ba instant mais gis fii sax lu ma gis macha allah mu mu daal wóor na ma ne kon semence boobu la liggéeyal damay dem daal sama alal ci àll ba am lu ci biir àll bi ma dem ndaw mais nag li ko waral mooy semence dafa dafa dafa liggéey léegi yow nga ñëw continué ko yal na yal na yàlla jàppale sa yow. jërëjëf Thiam jërëjëf ana ana ma jóg dafa de waaw mu ngoog waaw sa sa sa nijaay ngoog moom it tubaarkalla sa sa bàjjen bi nga da nga kii leen jàlloo leen kàddu ñu soog a ñaan jotaay bi rafet na ba pare toogaay tamit yàgg na ndax am na ñoom xamante ni depuis 16 heures ñoo ngi fi toog di xaar moo tax euh, ah incha allah ñoo ngi leen di ñu fi ñëw depuis takkusaan ñii depuis timis oustaz euh, Sakho sëñ As dégg nga ñoom ñëpp ñoo fi toog di xaar Malado Malado Ba moom it ñoom ñëpp tabarakallah ñoo ngi leen di jégalu heure boo ni loolu amee tamit xam leen ni. ay ay gàllankoor rek la waaye ndax bëgguñu fii kenn def fi benn minute moo tax sax damay organiser rendez bu baax ba daanaka ñetti nit wala ñeent rek waaw ñu ngi ci Maxtaar tamit dana jiite bu baax pour jotaay bi mën a am rafet ndax boobu ba tey comme ni ko euh, kii waxee Omar Ndiol ne ngeen def lu dëggu ci yéen lu sincère rek moo ci am solo yàlla yàlla jàppale leen bu baax góorgóorlu leen dégg nga sëñ ma jot ma delloo kàddu suba ak sa tante ak sa nijaay. ñu soog a ñu soog a ñaan incha allah taala man dafa sëñ Habib nekkoon nag mooy jël kàddu gi waaye déedéet doxalal non non déedéet doxalal rek doxalal benn waxin la waxin la. waaw. wala nangam ñu jeex na ñu ciy sant yàlla bu baax bu baax a baax di xam ne yàlla mooy boole ñu nit te loolu moom lañ ko baax a baax ñun bëri na ci loo xamante ni sax loolu lañ koy xool ndax suñu yaay xam nga borom baax des fois mu def jëfam yu baax waaye bu ñu xalaatee rek daa di dellu si waat ndax ñu ngi ko te moom sopp na la te ñun ku la sopp dañ koy sopp waaw jëkkëram ji tamit suñu jaay ji tamit li nga wax rek mooy man de wax dëgg yàlla parce que bu ma demee ci jàkkee. fekk ko fekk ko wallaay. waaw ah, te teel a jóg waaw te teel a jóg. waaw teel a jóg. ko teel a jóg ah, ubbi. kër gi ñëw bi bu kër gi. dañ koy na fi lu bëri. ñëw ñëpp fatoo mu ñëw tëj bu ndam nekk ci fajar jotee ñu gis mu ubbi

doo ko te njëlbeen nga mën naa bañ a waaye soo jëloon tekki wala nga bokk ak moom jotaay day xam ne sëñ bi dafa tànn dafa tànn te loolu am solo la ndax mbir moom dinañ ko def dina bëri ay wax ak i détail waaye bu ñu ñëwee ci biir rek suñu borom mooy lay moom ku waxtaan moom dina am confiance bu baax a baax a baax kon donc ñu ngi def di ko gërëm bu baax a baax a baax di ko ñaanal ñu yàlla yàlla ko yàlla dëgëral may leen ci njaboot bu barkeel njaboot bu islam ndax moom mii nit ñi si daal ñu ngi jàppale am na ñooñu yàlla jox ndox mi barkeel. jamono boo xamante ni àdduna dañ koy jiitaloo lislaam dañ koy jiitaloo ci dara des seen ñoom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun kay ñun ñun ñun la jox ñu ñun moom ñu ko jox mu ndax man dama leer na ma ni ko gisul ca jàkka ja yaa dem xanaa ñu koy fee te day daan dooleem liggéeykat ba mu jom la waaw dafay daan dooleem te am solo donc daal yow ñu la yàlla fenn li alhamdulilah euh, euh, sant yàlla bu baax te seedee gàmmu gi sax bi may ziyaari maam alaaji moom la fekk ak beneen wóorale sëñ Tafa ñoo wax yu rafet yoo xamante ku ku ku jegul sëñ Tafa loolu xamoo ko moom moom ak waa yooyu waaw yu rafet seede yu rafet déedéet fa nga leen fekk noonu laa ñuy waaw di échange ndax ren dañuy defar jàkkee jigéen ñi. waaw ñu ñu koy xëy man ci laa bokk sax bàyyee tam. waaw waaw ndax bu ñu koy déglu di waxtaan ak seen papa liggéey foofu jàng foofu taxaw ci ñun waxtaan. xam nga li ci bàyyi la très intelligent. donc yàlla ubbi la. yàlla yàlla yàlla man ñu ko moom. di sant ak yàlla bu baax di gërëm seen papa bu baax a baax a baax. dina baax mu bëri na mu taxaw mbir yu mel nii. dëgg la ñoom ñaar lañ ci kër ñoom ñooy gérer yooyu. te loolu dafay rafetloo ndax waaw yàlla daal bu baax yàlla leen yàlla jàppale bu baax baax baax ñu bu baax baax baax suñu yaay bu baax baax baax.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 Não? Então, prazer. Eu caí de boa vocês. Demorou, né? Tudo mundo tá. Todo mundo sabe isso. Cara, eu vou com isso. Eu muro. Eu moro Da, da, não se fica. Ah, não se fica. Felicitação. Ela é me murou. 啊，我们。